que ñu bëri dañu jàpp ne que Sénégal su fekkee amoo bravo maanaam soo xamul diw wala diw lépp loo bëgg ci dëkk bi dina jafe. loolu nañ ko def constat boo xam ne maanaam Sénégal yëpp loolu la ñu jàpp kon ñu ñu lancé tey le pacte pour l'égalité des chances lan la pacte bi dañu jàpp ne que tey lu euh, Sénégalais dañu war a def dañu war a yemale nit yi su ñu waxee dëkk nation premier point bi moo di ñëpp war a yem loolu moom su fekkee ni dëkk boo xam ne loolu amul loolu mooy indi gàllankoor yu bëri maanaam ngeen foote éducation classique maanaam xale yi jël gaal yi yaa xam ne euh, par exemple ethnicisme affaire u yaa xam ne ne que affaire religion yaa xam ne ne que par exemple dañuy dañuy dañuy séparé ndaw yi ak mag yi góor yi ak jigéen yi ñoo xam ne dañuy def politique ak ñoo xam ne ñu politique dëkk soo ko bëgg a yore nga nga bëgg ñëpp liggéey ñëpp gis seen bopp il faut faw nga ñu loolu ñu gis moo tax tey ñu indi li ñu woowee donc na pacte pour léegi pacte bi lan la bataaxal bi dañ koy jagleel les candidats à l' élection présidentielle donc euh, bataaxal bi am na fukki ponk bu njëkk bi moo di euh, dañu jàpp nekk tey Sénégal ñu bëri suñu buggee gis ñu leen di gis seen dirigeant yi maanaam président de la république ñu ko gis ministre wala DG Euh, day jafe su fekkee xamoo foofu kenn wala amoo plan loolu kon doo ko mun gis kon tey dañu créé benn plateforme boo xam ne léegi sénégalais yëpp foo mun ci nekk da ngay ñëw bind sa tur ne man dama bëgg a gis président de la république man dama bëgg gis ministre diw parce que maa ngi ci napp bi wala maa ngi ci sport bi gis diw parce que am naa projet wala bëgg naa jox sama loolu nag léegi ci biir président dina nangu ne que muy président de la république ministre yëpp chaque mois léegi faw ñu rencontré cinq personnes ñooñu nag dañ leen di tiré dañuy def tirage soo bindoo su fekkee sa tur génn na faw président mu recevoir faw ministre bi recevoir faw directeur bi recevoir maanaam yow boo ko gis dañ la recevoir mooy concours mu léegi ci financement yi tamit c'est toujours même chose soo xamee nit muy financement jeunes yi muy financement jigéen yi day métti xeex bi dafa bëri kon tamit dañuy def boo xam ne léegi financement boobu foofu faut tamit nga mëtal d'abord ay critères su fekkee critères yi mëtal nga ko kon di nga ñëw nga inscrire ci plateforme su fekkee nag ñoo xam ne mëtal nañu critère bi léegi nag plateforme bi mooy décider kan lañ koy jox plateforme nag day def tirage au sort maanaam nit dootul décider man Titi Camara may décider parce que yow sama xarit nga sama séeréer dama lay jox élargir dama la jox loolu jeex machine bi mooy xool ñëpp ñu mëtal critère ñu jàll léegi nag machine def tirage koo xam ne turam génn na ñu xam ne moom la kooku ñu jàppale ko boo xam tamit amul bu jàpp ne que tey du suma wërsëg mais du tere que ëllëg kii man mun nga yaakaar ne que dinaa loolu lay tax ne que ñëpp dinañu xam na ne que dëkk lu ñu war a def mooy ubbi bi loolu donc mooy deuxième ponk bi ci affaire financement yëpp góor ñi jigéen ñi troisième yi mooy muy euh, béykat yi euh, ci dëkk bi ñoom dañu am problème ak jiw bi ñu am problème ak matériel ak tracteur toujours xulloo day am kii day am tool bu ñu ko jox kële amul tool ñu jox ko kii am tool bu mag ñu jox ko bu bu ndaw kii am tool bu mag ñu jox ko xajtoo bu loolu yëpp toujours coow bi léegi dañuy def ay critères yoo xam ne ministère agriculture day def ay critères yoo xam ne day ne voilà yow par exemple foog nga am xajtoo lii mooy critère foog nga am tool boo xam ne tant hectares yow soo bëggee am semence libre ñëpp léegi dañuy bindu ci plateforme amatul xam naa jiw ñëpp bindu. wane seen këyit ci plateforme su fekkee nag yow sa këyit bët na su fekkee nag ñun Sénégal lu ñuy joxe malheureusement ñun nekk ñu comme France France su fekkee sa sa critère bët na dañuy jox ñëpp parce que ñoom seen budget antal na ko wante ñun Sénégal suñu budget antal ko kon faw ñu xool kan la ñuy jox ak ku ñuy jox kon su ñuy décider ku ñuy jox léegi amatul nit moo koy jox machine bi mooy taxaw ne voilà léegi kii mëntal na léegi dañuy def tirage électronique kanamu fichier boo xam ne turam gën a ñu xam voilà donc tout ce qui est béykat nappkat euh, sàmmkat ñoom ñëpp loolu la ñuy def euh, quatrième point bi mooy euh, ñu bëgg su fonction publique am na xale yu bëri yoo xam ne ñuy jàng am seen diplôme toog su fekkee ne xamoon nit day métti nga bëgg a dugg fonction publique saw nga xam ne loolu ñëpp fan foog naa ñëpp gis nañ ko xam nañ ko a koy wax léegi nag pare léegi ñuy dund ci plateforme boo xam ne bindu la léegi il faut nga indi lu ñuy laajte par exemple lu ñuy laajte benn euh, géomètre il faut nga am sa diplôme géomètre soo ko indee nag su fekkee ne par exemple cent géomètre ñu war a jël te mu am dix mille ñëpp ñu mëtal plateforme bi mooy tiré su ñu tiré ñu xam ne kii daal mëtal la ba pare wasi ko ñoo xam ne nag dëgguñu lu tere que ñu yaakaar ne prochaine fois su amaatee ñu dinañ leen jël loolu léegi euh, ponk bi moo di loolu yëpp il faut mu am benn ministère boo xam ne mooy donc il faut que candidat bi moom jël engagement que dina créer ministère pour l'égalité des chances donc ci gàttal daal loolu mooy kooku yoo xam ne nekk nañu ci parti bi. bu fekkee téeméer lañu ñaar lañ ciy jot ñaar ñooñu la jox ñeneen ñi dara duñ ko gis wala dara duñ ko am te pourtant ñun dëkk bi ñu ñëpp ñoo ko bokk ku nekkoon ñooy nekk victime ba seen njaboot doon victime ndax jigéen ñooñu tey jii la seen doom ñu jël gaal yi dem. parce que gis nañu souffrance bi ñuy dundee gis nañu seddaay bi ñuy métti bi ñuy nekkee xëy fajar génn sa kër ba 5 heures nga ñëw pour daje ci benn 1000 francs naqar boobu ñuy àndal moo tax ñu ñu bi boo amee comme financement yi ñuy wax nee naa sànq koy dégg mais dañ ko gis bañ nañ ko ba secteur financement yi sax ñi ko yor dañ koy mën a ci maanaam fa ñu dëkk wala région ba ñu dëkk ñoom cosaanoo ñooñu ñooy gën a gis seen bopp ci financement yi que ñi nga xam ne dëkk ñu fa te Sénégal du bu ñaari ne financement jigéen ñi jàppale leen ñëpp war nañ cee mën a gis seen bopp ñu bàyyi ji ñi nga xam ne que ñooy politique yi xaalis bi politique yi financement yi dem ci seen i askan dem ci seen i gox ak ci seen région ne ko def nañ ko Sénégal pàcc bi nag loolu moo ko tax a jóg dindi fi fi ba am lay ak ma amul ñu jàppale ñu jàppale jigéen ñi ndax jigéen bu ko jàppale jàppale ba réew ndax jigéen mooy jur yi kon nañ jàppale jigéen ñi jàppale seeni i doom comme ni nga ko waxee ni ko monsieur Camara waxee léegi euh, fonction publique jigéen ñi dañuy sonn ñi i doom mënuñu fa am accès seen ndax dañuy jàng da ngay romb ci benn bis suñu am seen ay licence gis fi suñu am seen ay master def ci benn bi di jot ay mbuusu gerte ay mbuus dem di ko jaay ndax lan boo waxee ñu ne xamuñu kenn déposé nañ ko sonn wala mënuñu fa am accès parce que xamuñu kenn loolu nag moo war a jeex loolu nag moo tax man ma ñëw toogal ci jigéen ñi wan leen jigéen ñi vraiment jàmbaar nañu waaye sonn nañu buñ ko waxee sonn nañu buñ ko waxul sonn nañu kon nag jërë ngeen jëf ñu leen di xaar képp ku ñëw ñu ànd ak yéen liggéey yéen ngeen gëstu jigéen ñi jàppale